mademoiselle Mira Diop li ma bëgg nag mooy ngay kat sa loxo nday joor nga waat ni li ngay wax dëgg la. man rek. yow rek kay. damaa doy man bay des. waaw moytul nag fi ngay jeexee. gis nga sama mandite gii. Mhm. daf may neex may màndi ndax dañ ma koo jëli ci sama deret la. maa ngi tudd Mira Diop. Mhm. dëkk dama ni la main droite zedi la main droite. kenn ñoppati wala ci xeex bi la continue caga bu am classe yor sama appartement maris di liggéey di def sama bopp faalewu ma doomu aadama gis nga kooku comme comme ko téye mhm. moo neex mhm. may gont ji écris-moi neex neex continue damaa jóge sama kër di gont ji mhm. ma tasanteeg moom mhm. mu waxaaleeg man war maa fay quarante mille mhm. mu ne ma nañ dem sa kër ma ne ko déedéet parce que sama caga ji toog boo nañ dem yow sa kër bañ demee ba këram mu def ma la may def ba ma ko téye moo neex di ko yóbbu one by one <laughs> <laughs> <laughs> da nga fa dem bay yóbbu qu'est-ce que mais silence. mais da fa dem bay yuuxu fi mu yóbbu kee lan moo ci sa ba nga yuuxu neex. on continue. mu daal di def ma lam may def ba pare bëgg maa fay dix mille francs man nuru naa la ku ñuy fay dix mille. mu nëbbatu di ma jox dix mille francs ma lànk na ko du ma ko jël ah, yaa ngi dégg mu yëkkati deux millions may ma may dem mu ne ma nañu dolli ma ne ko xalaatuma ko <laughs> te dama koo pompe gaz kenn pompe wu ko moo yëkkati deux millions may ma ko ak iPhone 5 bu ma laal mhm. yaa ngi dégg noonu la demee noonu la demee waaw ku naka dafa naan dégg nga li sa client bi wax donc tu as ñi fi nekk ñëpp dégg nañ li sama cliente wax. mais votre honneur. Mm-hmm. xoolal xale bi bu baax. Mm-hmm. kii dafa saf suukar saf kaani. waxuma sax 2 millions ya ko waaj may. mais kii nit ku nekk war nga ko yéene 3V yii muy villa voiture ba pare viré sa bopp jox ko ah, xale xale bi. non waxuma yow je m'excuse monsieur le damay défendre sama cliente rek. kon waajooju bu demee kii téye ko fu baax. mu ñëw naan kii dafa sàcc ay 2 millions ay wax la. kooku ci boppam dañ ko waroon ni ràpp ci kaso bi.